monsieur Cheikh Fofana ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. jërëjëf yàlla ngeen jëf waaw maa ngi leen may fàttali suñu auditeurs yi ñoo ngi dalal tey bés bi ñuy màggal environnement. Euh, kii di directeur adjoint bu euh, environnement justement euh, ñu wax ci bés biñ ko jagleel. mu am benn thème bi nga xam ne moom lañ fi teg dinañ ma baal muy restauration des écosystèmes ñu jagleel ko bés bi tey Sénégal yan jumtuwaay la teg ngir mu mhm. àgg. ci loolu nga mm-hmm. xam ne moom lañu ñu digtal ci ci bés bi. ok jërëjëf. Mm-hmm. Euh, environnement mu ngi tudd alam ci wolof. d'accord merci. alors euh, ma sant di la gërëm. Mm-hmm. ci laaj bi. di wax ne ni ma ko waxee sànq ci nasaraan rek. Euh, mais dama bëgg nga may ma avant may tontu ci sa laaj bi. ma waxtaan ma wax tuuti bés bii fu mu jógee. ci biir contexte comme ni nga ko waxee tey. maanaam àdduna wër nga képp foo ci dem mhm. ñu ngi màggal maanaam bés bi jagalal adam bi mhm. muy environnement mhm. muy bés boo xam ne mbootaay xeet yi ca 1972 moo doon première conférence bi ñu jëlal bi ñu bi ñu bi alam bi dañ dañu defoon ko fële ca Suède ca Stockholm dañu ne bës bu nekk le 5 juin bi dañ koy jël mu nekk bës boo xam ne euh, dañ koy réserver alam bi dañ koy jagleel alam bi muy bés boo xam ne buñ ko tolloo dañuy gën a ñaaxaat nit ñi ak euh, gouvernement yi ak secteur privé bi ak collectivité locale yi ñu gën a gën a dolli seen taxawaay ci maanaam aar alam bi mm-hmm. loolu moo waral bés bi tey mm-hmm. alors bu ko defee tey foo dem ci adduna bi yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy màggal alors fii ci Sénégal boo gisee ren euh, daloo jël maanaam mbootaay xeet bi nga xam ne mooy toppatoo mbirum alam bi ñu koy programme des Nations Unies pour l'environnement mm-hmm. Euh, thème bi mu jël tey daf koo jagleel maanaam affaire écosystème écosystème mooy loo xam ne euh, mooy suñu dëkkuwaay beeg ak mala yi ci dëkk ak yëpp daal mm-hmm. muy loo xam ne lu am solo maanaam suñu suñu suñu dund ci loolu la sukkandiku ci maanaam ci écosystème yooyu mm-hmm. Mm-hmm. alors ren ñu jagleel ko maanaam mbirum écosystème yooyu Sénégal nag dafa tax dafa daf moom at bu nekk bu Nations Unies jëlee thème bi moom tamit dafay ut benn thème boo xam ne boo xam ne dafay méngoog suñu suñu suñu réalité mu taftal ko donc ren ñu jël ko wax maanaam programme euh, plan Sénégal émergent bu vert maanaam plan Sénégal émergent vert PSE vert maanaam bi nga xam ne moom lañ jagleel mooy bànqaas bi nga xam ne PSE moom la jagleel mbirum environnement mhm. ñu jagleel ko loolu ñu wane PSE e mën na nekk benn Euh, maanaam benn benn benn sukkuwaay. Mhm. boo xam ne mën mën nañ cee sukku pour gën a gën a aar écosystème yi fii ci Sénégal et CVRO. d'accord alors bu ko defee gouvernement du Sénégal comme ni ma ko waxee ci nasaraan également. Mhm. te na ay politique ay programme ay stratégie yoo xam maanaam loolu yëpp ngir mën a toppatoo écosystème yooyu ma jox la benn exemple. Mhm. écosystème day loo xam ne comme ni ma ko am na écosystème yu bëri. am na écosystème forestier mhm. maanaam moom mooy àll bi mhm. am na écosystème marin moom mooy géej mhm. am na écosystème terrestre am na sax écosystème artificiel mooy maanaam dëkkuwaay yeeg yëpp ay écosystème la nga gis ne écosystème yëpp boo ci jël ay nit ay mala ñoo ciy ak ñoo ñoo ñoo ciy nekk alors euh, boo jëlee écosystème forestier boobu nga gis ne euh, fii ci biir Sénégal yàqu-yàqu yu maanaam boo demee Casamance ay Sédhiou ay Kolda gis ngeen gor euh, gor garab ni mu méttee. Mm-hmm. te loolu ñuy def yëpp baaxul ci sunu sunu koom-koom. Mm-hmm. leneen li ci am également mooy garab bu ñu xamee ne njëriñ bi mu am ci coppite jaww ñi ngi gis léegi maanaam ci tubaab bi di ko réchauffement climatique changement climatique. Mm-hmm. garab bi am njëriñ. te am naa yaakaar ne bu ñu daggee garab yi nga xam ne yëpp moo ñu dese. ah am naa yaakaar ne tàngoor yeeg coppite jaww ji fi jóge. Mhm. donc nga gis bu baax ne écosystème maanaam importance bi am. Mhm. boo jëlee écosystème marin également c'est la même chose gouvernement du travers maanaam ministère bi nga xam ne moo yore mbirum alam mi. Mhm. ñu ciy liggéey bu baax ngir gën a mën a aar suñu géej xam ngeen géej importance bi mu am fii ci biir Sénégal. napp beeg tourisme beeg yëpp see ñu sukkandiku boo jëlee écosystème d'eau douce maanaam lac yeeg fleuve yeeg yooyu mm-hmm. am na ay euh, àll yi ci sax ñu koy ooy mangrove mangrove yooyu yi nga xam ne dafa am maanaam day day day day day bokk ci équilibre écosystème bi mm-hmm. mais boo xoolee mangrove boobu euh, am na ay xeetu ci bëri ciy dund yoo xam ne dafa am njëriñ boo demee fee ci Sine Saalum wala Toubacouta bii nga xam ne tey fa la ñuy maanaam célébrer journée mondiale environnement yi mm-hmm. mangrove boo xoolee njëriñ li mu amal paañ yeeg yoxos yeeg jën yu ndaw yëpp ci lañuy ñuy dund. Mhm. loolu yëpp muy njëriñ boo xam ne ñu ngi koy exploité ku ci nekk di ci gis sa donc nii loo xam ne dañ ko war a aar ngir mën a dëggal koom-koom donc gouvernement du Sénégal en tout cas jël na ay matuwaay yoo xam ne écosystème yi lépp loo xam ne mën te taxaw ngir aar leen ni mu waree. Mhm. ngir mën a maanaam euh, sukkandil suñu koom-koom daal gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'environnement et du développement durable ñu bu baax baax. Mm, d'accord muy loo xam ne nag. Mm-hmm. du mbirum administration rek du mbirum gouvernement rek. du lëkk. Mm-hmm. dañ ci war a dugal seen loxo. Mm-hmm. maanaam secteur privé bi collectivité territoriale association yi ONG yi am naa yaakaar ne lu kenn mën fukk ko ko ñëpp bu ñu taxawee joxante loxo toppatoo suñu alam am na lu bari yoo xam ne koom-koom suñu suñu réew mën na cee génn. Mm-hmm. donc muy loo xam ne lu am solo la. yéen tamit yéen journaliste yéen média yi. Mm-hmm. yéen da ngeen nekk benn euh, benn puissance boo xam ne dafa am doole. et ngeen am taxawaay boo xam ne tamit rafetlu nañ ko. Mm-hmm. nga war cee taxaw ngi gën a mën a euh, maanaam dooleel ñaax bi ngeen xam information sensibilisation yi ngeen xam ne. yaa ngi koy def ngir gën a euh, ñaax nit ñi ñu gën a toppatoo alal am naa yaakaar ne daal yooyu yëpp buñ ko buñ ko pexe yooyu yëpp gouvernement bi yëpp bu ñu joxantee loxo yëpp ñu def ko am naa yaakaar ne écosystème yeeg alal beeg yëpp dinañ ko mën a ngir suñu koom-koom nga wax PSE euh, ñu bëggoon a xam tey jii lan mooy objectif bi teyit it Sénégal euh, fan la toll depuis ba mu lancé mhm. bi les programmes. waaw PSE comme ni ma ko waxee sànq ci national xam nga PSE moom mooy programme bi nga xam ne Sénégal tëgg na ko ngir mën a ngir mën a taxawal koom-koom fii ba deux mille trente cinq. et comme ni ma ko waxee koom-koom dafay sukkandiku ci alam bi. alors bu ko defee boo buggee def loo xam ne dafa war a maanaam sax maanaam ñu koy développement durable mm-hmm. fii ba deux mille trente cinq il faut gaa nga aar li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy indi euh, koom-koom boobu. yooyu yëpp environnement la. Mm-hmm. moo tax PSE mooy bànqaas PSE bi nga xam ne moom mooy toppatoo affaire alam bi alors euh, ci loolu également ñu euh, ci yëngatu bu baax boo xoolee PSE vert bi ci gën a am solo aujourd'hui tey moment mooy ñu xool comment reverdir Sénégal. comment jëmbat garab parce que garab dafa am solo. Mhm. boo gisee euh, defar ñu ay agence yu bees maanaam agence de la reforestation. Mhm. et de la grande muraille verte. n'est-ce ak ak programme bu am solo boo xam ne bëgg nañu gouvernement Sénégal bëgg na ci maanaam euh, ci biir ministère environnement maanaam ñu def Sénégal euh, un un Sénégal vert maanaam jëmbat garab. Mhm. jox garab yëpp dooleem. leneen li également mooy setal dëkkuwaay yi dafa am solo mooy programme zéro déchet nga xam ne nit fu mu war a dëkk dafa war a set parce que wér gu yaram bi si la sukkandiku n'est-ce pas leneen li nga xam ne également muy aar aar mala yi mala yi également dañ koy bokk. Mm-hmm. parce que équilibre bu bëri boo xam ne boo xoolee feebar yu bëri yi am léegi yu ci bëri ci mala yi lay jóge mm-hmm. nest parce que ñii ñu ngi rey ñii ñu ngi di génne fi ñu waroon dëkk lépp day indi ay ay jafe boo xoolee Ebola fu mu jógee ci mala la jógee leneen li également nu nga xam ne lu am solo mais garab yi nga xam ne yëpp tey vaccin yi nga xam ne yëpp ngi koy defar mais ci ci ci ci ci ci ci écosystème yi la jógee maanaam ci plante yëpp la jógee donc am naa yaakaar ne bu ñu leen toppatoowul ni mu waree euh, am na yaakaar ne recherche scientifique suba suba suba dina mën a am ay difficulté et yooyu yëpp gouvernement Sénégal xam na ko ba tëgg ay programme tëgg ay stratégie yi nga xam ne moom mooy suuxat plan Sénégal euh, émergent vert boobu PSEV boobu ngir vraiment euh, suñu koom-koom fii ba deux mille trente cinq ñu mën ko sukkandiku donc muy loo xam ne vraiment ñu ngi ci euh, am naa yaakaar comme mu ngi également il faut que ñëpp jàpp mu gën a jëm jëm yoon. kon daal pays e vert bi bu ma la déggee euh, Sénégal di lay jaaree gëna yokk li jëm euh, ci liggéeyam ci biodiversité waaye it euh, ndax dina koom bi dina ci àndaale. waaw bien sûr mooy li ma wax ci njëlbeen nee naa la koom-koom dafay sukkandiku ci alal. parce que boo waxee tey mu jox la benn benn firnde rek. Mhm. boo waxee pêche maanaam napp mais booy napp il faut nga am géej wala nga nga am nga am fleuve. Mhm. mais euh, géej googu maanaam euh, source euh, kii la élément environnement la boo toppatuwul géej googu ni mu waree. Mhm. di ko mais mëntuñ fa wax pêche bu dëgg. Mhm. donc boo nee mbay. il faut nga si am suuf. Mhm. mais suuf soo xam ne suuf su gën a mën a suuf su baax la mais suuf soosu élément environnement la ak yeneen ak yeneen ak boo xoolee koom-koom dafay sukkandiku ci maanaam alam et ni nga gën a toppatoo sa alam. Mhm. noonu ngay gën a développé. Mhm. voilà sànq yaa ngi koy wax euh, tey ñu gis ne euh, yéen a ngi dox ci prévention waaye ci préservation biodiversité euh, bu ñu doon xool. Euh, li jëm ci sachet plastique yi Sénégal. Mhm. am na ay euh, at a ngi nii. Euh, mu mhm. am benn loi biñ fi teg ngir dootuñ mhm. ko jaay. mais teewul ba tey ñu ngi koy gis ci marché yi ndax am na ay daan yi nga xam ne ñu ngi koy appliquer ñi nga xam ne ba tey ñoom seen xel defuñu ko ci loi bi fi ne. waaw waaw loolu moom lu am la. loi bi effectivement. am na ay daan yu mu tëral sax am na ay saisies yu bëri ay tonnes tonnes yu ñu def. fi mu nekk quatorze régions yëpp boo ci demee suñu division régionale environnement établissement classe yëpp mhm. am nañu liggéey bu mucc ay buñ def pour maanaam dissuader ñi nga xam ne il von à l'encontre de la loi sur le plastique jàpp nañ ci yu am na amande yu bëri yu ñu jàpp am na yu yoo xam ne tamit defere nañ leen mais def naa mbir mi du fax war ñu yegg foofu yëpp mhm. li gën am solo te ministère bi def ko mooy ca njëlbéen ba ba ba loi bi génnee mooy ñu renforcer information sensibilisation mhm. gën ñax ñaax nit pour wal leen ne kat lii ngeen di def lu yàq la rek lu defar. Mhm. day yàq Sénégal ñëpp ñoo ko moom. ba ñoo yegg nag ci ay maanaam déféré wala ay amande ak yooyu te ñoo changer comportement yi ak attitude yi. Mhm. alors foo dugg ñu ne la wéy mbuusu place bi waaye mais joxu leen ñu loolu. Mhm. am na yeneen emballage yu fi nekk. gis ngeen ne euh, ministère environnement ci campagne de sensibilisation yi war nañ ay emballage plastique ay emballage papier autant pour moi ma ay kayit emballage kayit et fii am na ay usines yoo xam ne moo seen tur mais ñu ngi yëngatu ci mbir moomu mm-hmm. lépp daal maanaam il faut que ku ci nekk individuellement ak collectivement maanaam ñu changer comportement bi mm-hmm. lii buñ ñu ko teree c'est parce que dafa am lu tax tere ñu ko rek pour simple trésor mm-hmm. mais ngir yàlla bu la ko teree ngay citoyen bu responsable war nga xool kat ne lii su ma bu yëpp defoon ni man du baax bu ko defee comme lañ ko teree naa ko tere. Mm-hmm. léegi gouvernement bi également mu ngi yëngatu ak ay industriel pour remplacer ay emballage emballage papier yooyu. Mm-hmm. bu ñu ko defee en tout cas euh, parce que am na dëkk yu bëri yoo xam ne réussir nañ ko te ëppale ñu ñu dara. du ma wax seen tur mais dëkk yoo xam ne ñu ngi fii jigéen nañu Gambie. Mauritanie Rwanda bu moom ay tur n'est-ce pas <laughs> Kenya mais dëkk yëpp mën def ba réussir mais Sénégal mën na ko def ba réussir ko mais dafa sukkandiku nag ku ci nekk nga julli nga def ci sa waar mhm. waaw yéen moo tax ma ne yéen presse bi am ngeen taxawaay boo xam ne bu am solo boo leen ci woon tax yaa ngeen koy def sax yaa ngeen koy def gaa yaa ngeen koy def mhm. yaa ngeen di sensibiliser mais war nañ ko gën a dolliwaat encore am naa yaakaar ne buñ ko gënee dolli en tout cas dina tax boo ñu yokk ci ñu maanaam bërëb municipal presque yooyu jóge biir Sénégal. parce que yeneen réew daal. wax mhm. dëgg yàlla ni ñu def ba réussir Sénégal mën na def. ba réussir soppi doxalin comme ni nga ko waxee. soppi doxalin waaw soppi doxalin soppi boo xoolee sax léeg-léeg ci grande surface yi léegi amatul mbuus. ay kayit li ñuy joxe. ak leneen ak leneen ak leneen. Mhm. Mhm. moom tey problème mooy maanaam marchand yu ndaw yi mais ñooñu également comme ni ma ko waxee ay ñu ngi taxawal ay ta euh, ay ay tërëriñ yoo xam ne. Mhm. bu emballage papier day am. c'est pour que véritablement ñu remplacer plastique bi par emballage yooyu. waaw tey yow yaay euh, directeur adjoint bu environnement ñu lay interpeller euh, en tant que spécialiste ci li nga xam ne mooy mbas mi àdduna bi gis nañ ne am na conséquence bu positive ci wàllum climat tey mhm. nan la àdduna mën a def ngir ñu mhm. adapté ci changement mhm. climatique bi. waaw yow yaa ko wax gis nañu ne bi pandémie bi amee ba léegi liggéey amatul liggéey bi wàññeeku na. Mhm. industrie yu bari fonctionné ñu ou bien ñoom bu ñuy fonctionné tuuti la ñuy fonctionné. tuuti la ñuy fonctionné. donc yépp yi nga xam ne dañoo indi créer pollution. gaa gis nañ ne bi bi mbas mi basé ba léegi pollution bi wàññeeku na. Mhm. te boobu nga xam ne moom moo doon indi maanaam coppite jaww ji automatiquement da koy impacté positivement mais li gën am solo également mooy li wax toujours rek pour dellu siwaat également ci écosystème mhm. boo jëlee écosystème forestier maanaam àll bi ñëpp xam nañ ne garab njëriñam garab day day day day consommer co maanaam gaz carbonique. Mhm. def ko oxygène bi ñuy noyyi mais euh, bu nu daggee garab yëpp. est-ce que dañu amati lenn la nga dina consommer co boobu nga xam ne moom mooy indi coppite jaww ji dootul am. Mm-hmm. donc boo gisee dafa am lien de causalité entre écosystème yi. Mm-hmm. ak maanaam euh, changement climatique yooyu ñu gis yëpp. donc bu ko defee ñu war taxaw également toujours comme ni ñu ko waxee ak thème journée mondiale environnement bi ñu mën a aar restaurer ak préserver maanaam écosystème yooyu yëpp. Mm-hmm. genre bu ñu ko taxawee bu ñu ci bu ñu ci góorgóorloo. en tout cas. Euh, réchauffement climatique moom dina gën a mën a wàññeeku quoi. d'accord merci beaucoup euh, Cheikh Fofana. jërëjëf waaw ah, maa leen di gërëm yéen tamit jërë ngeen jëf yéen tamit et en tout cas ñu ngi saluer taxawaay bi. Mhm. en tout cas euh, dina am toujours à nos côtés pour que véritablement politique environnementale bu Sénégal mu nekk maanaam mbiru ñëpp parce que am naa yaakaar ne ku ci nekk boo ci dugalee solo loxo rek. njëriñ lay nekk pour Sénégal pour sunu koom-koom suba. voilà di waaw euh, ñu am yaakaar ne euh, woote bi dinañ ko dégg muy plaidoyer bi donc. ci bët ñu jagleel environnement moom mii di directeur adjoint euh, bu environnement.